Kalidou Koulibaly aussi nekk ci défense bu équipe nationale du Sénégal moom itam changé na équipe euh, choix boobu mu def ci Chelsea ban jàngat nga ciy def. bon euh, choix wu Chelsea baax na par exemple ci ci diggante ñaari changement yooyu bu Chelsea baax na. yëpp ñaar baax na parce que fa mu jógee aussi Naples baax na cest dire au change il n'a pas perdu il a peut-être gagné quelque chose il a peut-être gagné d'autant que moom bëggoon na dem bëggoon na dem euh, bu yàgg parce que léeg-léeg bëgg dem bi euh, la motivation n'est pas financière léeg-léeg c'est vouloir changer de cadre changer de contexte changer de monde changer d'habitude Euh, euh, de de méthode de vie léeg loolu la parce que entre Naples ak euh, Chelsea booy xool amul grande différence tey jii boo doon seet ci grosses écuries yi dans le monde les plus grands championnats du monde ku jóge Italie dem Angleterre ak ku jóge Angleterre dem Italie c'est presque la même chose presque la même chose d'autant que Naples ak ak Chelsea Euh, mën naa ni même cadre la même pointure la même niveau de vie la bon il semble s'épanouir j'étais content de le voir l'autre jour marquer un but d'attaquant cela veut dire que c'est un défenseur qui gagne en confiance et à la veille de la coupe du monde c'est bon de se situer euh, en ce moment ci boobu niveau c'est bon pour lui il voulait partir et le voilà qui s'épanouit là c'est bon c'est bon vraiment